gay balaa dara xew abonné len abonné len abonné len abonné len beus len sem ku sétane vidéo bi beusal sem ku abonné wutoon abonné nga beus notification bi gay dafa am ben serigne bu nekkon euh, côté Kaolack lo xon mi ngi tas dekk bi kok du feñ internet mais mi ngi tas dekk bi ben femme wootee ma wax na ma lu doy war lo xam mom lako def dama non bayina ko wo sax mais il faut ma abonné abonné abonné té man limay jaxal du jël appel normal whatsapp rek whatsapp rek appel whatsapp rek appel whatsapp rek lay jël abonné leen gaay yi sànq bi ma ko wooyee laaj na ma xaalis bu mu dugalal ko 5000 ndax nee na 5000 lay seeti 5000 boobu moom gars yi garaawul waaw nee na 5000 lay seete léegi nag pour ma mën koo jàpp il faut ma dugalal ko xaalis bi whatsapp waaleykum salaam sëñ bi maa ngi ziar. waaw loolu ziar bu wér wér. ah gis nga ko ah. waaw waaw. Euh, léegi euh, comme ni ma la ko waxee rek seet gi daal laa bëggoon parce que instant bi moom xawoon na nekk ci ay affaire yu waar trop. waaw waaw waaw la waaw dëgg léegi da ngay bàyyi ba pare. waaw julli timis pare. waaw. de teg maa dimbali rek ndax instant bi dama. mais am na lu ma jot a gis daal. waaw. waaw ah, ah xaw naa day waar tuuti de. ah ba jàmm rek. waaw jàmm rek jàmm du jàmm. ah loolu doy na waar kon. waaw yow da am ñetti jabar. ah ñetti jabar. waaw sa sa sa sa sa ñaareel. waaw. sama ñaareel man. waaw waaye waaye ne la alhamdulilah ba nga jotee si man. Ah, kon alhamdulilah. waaw lépp lépp laal di dina dina matandi bu neexee yàlla suñu borom. lu muy fexe noonu moom. moom daal alal yokk. ma ne. ah. ma ne day fexe nga fàggu. waaw fàggu fàggu mooy lan. mooy nga dee moom moom yaakaar naa moom moom moo fa am moo fa am ñaari ñaari doomi góor ñi fi des yëpp sa aawa jigéen la am sa ñetteel bu jigéen la am moom moo fi am góor yaa ngi may dégg allo sëñ bi. waaw maa ngi lay dégg waaw. léegi nag dina dina dina la defalal ay sarax yoo xam ne nii. Mm-hmm. waaw lool loolu de da ciy baax. ah kon kooku est-ce lekkam di wóorati na pour di ko lekk. mukk mais tamit keneen kay gën ah kon du moom kese. du moom de. Ah, na waar keneen ku keneen ku lu mu def moom it.

làmmiñu bëy. làmmiñu bëy waa xam nga bëy moom day mbalala la di rek. kon dafa xaaral may jëndaale bëy tamit. voilà waaw mën ngaa jënd jënd bëy bëy bëy bi na nekk bu ñuul. waaw. waaw. waaw xam bu weex la bëy moom na nekk bu ñuul. léegi yow laa koy dama la koy indil wala nu may def ba jot ci. léegi man may jënd ma jënd ko. ah aku jadi ko jënd indi ko yow foo dëkke allo waaw daa mel déggatuma la de réseau bi daa mel daw de waaw. ni ma dërëju dërëju béy bi ak xar mi. waaw parce que dama koy soxla dama koy soxla ñoom ñaar. ah mën naa ko jënd ngoon kon su ma indil la ko wala. waaw non da may envoyé xaalis bi rek man ba ma envoyé xaalis bi dinaa ko jënd. mais ko la béy bi xar mi. ah nga foto non jërëjëf foto léegi ñaata laa lay envoyé. léegi may envoyé trois cent dix mille. trois cent dix mille ci xar ak rek wala. ah nga door ci biir. waaw waaw waaw ah, waaw baax waaw waaw baax na waaw léegi xaar ma jox la tamit sama xarit bi moom tamit léegi waaw dimbali ko moom moom instant bi nii comme kii nga seetal ko benn yoon rek moom tamit xam naa ne loo ko laaj dina la ko jox léegi après bu pare waaw waaw d' accord d' accord. incha allah léegi xam naa ne xaar ma paas la ko léegi. léegi xam naa ne après bu paree dugalal la 5000 comme dugalal naa la. waaw baax na incha allah. waaw d' accord am waxal ak moom. xaar ma jox la ko am waxal ak moom. ayo te te te te te te te Ama yeti ben yeti yeti ben ya ben de öyle yeti bir. Yeti yeti ben de. Alo. Alo sen ya ya ya ben yeti ben ben de. Ma ma yeni ma yeni ma yeni. Ma yakal mugara gül lektan やめてやめてあだだだだぬやあたたまたにもぼいよ man te dama budun ñaan ma am tey tey tey ak oto kër ak oto tey tey ah Ah. Mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani 아와 유튜브 뭐 유튜브 아와 유튜브 안 나오지 아 유튜브 안 나오지 아요 예예예예 유튜브요 다음은 두배 다음은 두배 와도 아요 와 많이 많이 됐 많이 됐 많이 됐 waaw. ma ne ma ne si kaw loolu noonu ma soo ma payee xaalis kër da nga am oto. aywa ah, jaato jaato jaato jaato maa du de doon. waaw dinaa de loolu yëpp boo ma joxee un million si lay toll si te am tañ aw moom kay jooni jooni laa la koy defal. ah du tuuni tuuni Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Yow foo yow foo dëkk. Ah. Ah, waaw. ah Tondal Tondal. ah yow da yow danaa am kër. am na jabar am na jabar am na jabar ah. No, uh, another, another. I'm not, ah d'accord d'accord d'accord d'accord. ton man man man man ma kon ton ton ton ma jox na taxis bi daal loolu am tey. waaw balaa balaa màggal gi ñëw wala nga may gaaw envoyé ma ah 나, 나, 나만 봤었지. 나만 봤었는데, 여기 다치네. 여기 다치 본다. ma yow tàtt na tàtt tàtt bu bon a bon a bon yow bu ñëwee tàtt ba ett yow def ca bon dëpp. yow sa sa làmmiñ eu nooy ñaan loo yow ku la ñaanal sa dugal sa làmmiñ setul mënoo wax wax bu baax. yow tàtt na tàtt na yow de tàtt na yow de tàtt na yow amoo tëj amoo oto noonu. non yow amoo tey amoo oto noo ma ñaanee ma am tey am oto. waaye xam naa poxol moo xam ne maa ngi fay toog di defal jaamu yàlla yi. waaye waaye day xaaral ma taasa sa ci man dóoru ma yow xamoo dara taam paasa. Ah, ah, as astafurlah bul bul ko wax loolu. asa non eh, allo bul bul wuy wuy ma bul tontanteeg moom kii daa xamul rek. waaw waaw sëñ bi waaw. waaw ma ne bul tont. ah yow waaye dama tamit da nga koy da nga koy ñaanal mu am kër ak oto. waaw mën naa ah. la ko doon ñaan moom boo bàyyi woon sa fenn metti nga nekk ci dëkk beeg naxaate bi dina baax de ndax yow man awma jabar. bay awma benn bay am ñaar ma ne. boo bàyyi woon boo bàyyi woon sa fen yeeg sa naxaate yi nga nekk ci dëkk bi ndax man awma jabar bay am oto bay am bay am benn bay am ñaar ñett fen kan nga desaa. waaw ndax ñi ngay ñi ngay jigéen ñi ngay nax moo bari baal xaalis jigéen ñi ngay ñi ñi ngay ñi ngay jàpp di ko lekk. sëñ bi sëñ bi man du ma sa morom man du sa morom dama lay soppi électrique. waaye yow da ngaa xamoo dara wuy ma non dañuy waxtaan rek en tant que wuy ma keroog woowoon naa la fii ba dugal la YouTube tey jii bii tamit yaa ngi YouTube <laughs> jarut coupé jarut coupé de. copier ma insisté ma woowaat la rek boo insisté boo copier ma woowaat la gis ngeen ni muy profité gaawal gaawal gaawal gaawal gaawal ah yow amoo kër amoo oto amoo amoo jabar nooy ñaanale nit mu am kër ak oto jabar il faut ngeen yeewu bàyyi leen seen ngeen di fooye nangu dajal gars yi ñee ko gisandoo il faut ngeen bàyyi seen xel yi ngeen di fooyee kii amul kër amul oto amul jabar yéen mu ma jox numéro bi nag boo ma ko joxatee du ma ko woo ndax kii xam ngeen ne day fenn xam ju gaaw ji ak ni mu lay profité naan la gaawal def nii gaawal def naa gaawal def nii ngeen jël seen xaalis di ko envoyé xam da ngeen ni sëriñ am na de mais da ngay gëm yàlla d'abord ba pare wóolu ko sëriñ am na am na ñoo xam ne ni dañ lay ñaanal loolu dëgg la am na mais tamit nga topp ci ñoo xam ne dañ lay nax kii keroog mi ngi ne ma euh, côté Saalum tey mi ngi ne ma côté Xombal yéen ko yéen yéen ko déggandoo te xamu na même nit bi lay waxal léegi nag amul problème problème comme whatsapp rek la yor bu ma paree bii moom dina ko seetaan ndax dinaa ko envoyé ci whatsapp am ma xam carrément ki muy waxal ba pare ma ne ko soo arrêté wu di bàyyi di def lii dinaa la gën a dino dana dénoncé noonu lañ koy waxee gars kon di leen di abonné di partagé di loolu di leen wax na nag am na yeneen yoo xamante ni sensé naa ko yeneen yoo xamante ni par samedi lay daw xam nga fii boo waxee dañ lay pirate samedi samedi par samedi lu yéeme dinaa koy dugal lu yéeme yoo xamante ni nii damay waxagu damay bañ a gum wax mais du tee tamit PS yi day continuer gars yi di wax abonné leen commentaire bës leen sem yaa ngeen jëf.